GPA seals compensation deal with Bakau and Banjul. The Gambia Ports Authority yesterday confirmed it had reached a compensation agreement with Banjul Muslim elders and the Bakau Village Development Committee over issues dealing with the port expansion project. The much anticipated project, which will require some residents of Halfdai to seed their houses and relocate to Bakau to create more space for the operation of the only seaport in the country was halted following GPA's failure to reach an agreement with the people of Bakau and the Banjul Muslim elders for the relocation of Muslim senior secondary school. Yesterday, the GPA said successfully negotiations with the community of Bakau and the VDC have resulted in an agreement whereby part of Kachikali layout will be ceded for the relocation of the half-die residents. The half have their residents close to the port premises whose properties have been acquired for the port expansion could now vacate the acquired area to allow for the construction of a new container terminal. As one of the urgent components of the project, the GPA said in a statement. The GPA also explained that it has also reached an agreement with the Banjul Muslim elders and the Board of Governors of Muslim Senior Secondary School for the acquisition of the school premises and its relocation to a new place in Brusubi. The GPA said all these are part of the port expansion project as identified in the Ports Master Plan 2019 to 2038. The accusation of these areas and their conversion into container terminals will contribute in the in the space constraint improve ports performance and help reduce the congestion being experienced. um, business uh, kibaro to nga min sotali yake ta fennati mi yalan ko nyinga mo yo diata bakele uh, bayri be yakala mutala ko min ko an uh, nyin uh, port uh, nyin um, um, kiba dilal dila ko min ko nyin problem jamale be nunje min be dending uh, nyin kenola karola waya ko min ko nyin do ko nyin man tanung uh, nyin uh, nyin uh, uh, takatanung nyamin uh, fo nyin audit committee nyin nyemiti no nyin kumandinung mm -hmm. uh, ka jube ko min ko nyi bo domol ñin solfnola ñaadi lay a woketa fentimi yalan komin ko a ñinga ammo yoɓe diyalantel bulo kono baake lay a pour ka kalamata komin ko a deɓoya actually able to uh, make an arrangement or agreement uh, with uh, some people mi yalan komin ko itol ɓe ñin uh, bakaw lay uh, ñin pour kaje komin ko a ah, molmi yalan koy itel ba poddala nyen komin half day pour ise nyen sawun ka bo woto nyen kata bakaw ci kale isaje nyen isa pot nyen a nyen lafano nyamen ta kibaro te mi yalan komin ka moyo diata bakele a ah, bayding a ah, nyen gambeno bebe wala kumbo kan pour kaje komin ko nyen an pot be nyen kafla nyen no le waaw lolu xalaat bu rafet la ndaxte ñu bo leen jëlé ci place da nga wara yobu ci place bu bu ci ayib ndaxte nit ki liy développe sa dëkk war nga cee contribuer. Mhm. ndaxte AFDA yi def na kër yi bari joxe nañ ko. Mhm. ngir port bi ñu extend ko. Mhm. kon nag muslim high school bu ñu demee ba gis ne li ñu nekk foofu yëpp dañ ko jël even KG5 sax ñu doon wax ne ci paak bi yëpp dañ ko war a jël def ko ci port bi waaye nag port bi war nañ ko mun a yaatal war nañ ko mën a yaatal kon am nañ fenn foo xam ne waxtaan nañ ko muslim elders ah, elders yi wax nañ ak waa Bakaw développement Bakaw développement committee la defe naa de. waaw good so. ñu agrément bi ñu def noonu dañ koy rafet lu bu baax ndaxte nag réew mi buñ ko bokkee rek nañoo def li tax ñu bokk ko ndaxte tey jii famille yëpp benn lañ am na ñoo xamante ne seen famille yi ngi Bakkaw am na ñoo xam ne ñu ngi Latrikunda ñu ngi Diosuwang ñu ngi feneen kon ku toxu rek fa nga toxu fa nga dëkk kon nag agrément boobu bu ñu ko defee pour mun a yokk port bi loolu gis nañ ne lu rafet la te def nañ move bu am solo bu réew mi gërëm lool Ah, bu géwél am na loo xamante ne dafa important trop xam nga wax nga ko ah, te foog naa ne comme xam nga as patriotic citizens mhm. ah, soo gisee xam nga problem in your country problème boo xamante ne xam nga yow fiil nga ne comme xam nga you should actually play your own quota mhm. to end ne comme xam nga that problem is solved mhm. you know xam nga ko war a def so xam loolu moo tax comme xam nga di Banjul Muslim elders ñoom xam nga step bu gaa jël xam nga pour ñu come together to make this negotiation with the Bakau uh, ah, Development Committee uh, mhm. ah, uh, ah, membership uh, be guy hanga they actually agree to be compensated mm. uh, su ko defee hanga the, work can actually uh, done hanga bu liggéey bi nga xamante ne it was to be done long since but they don't actually know how to start it and then mhm. because amuñ space so lii daal hanga dafa nekk loo xamante ne dafa important torop mhm. and then hanga ñu ngi jaajëfal ñëpp because si biir wax bi um, a uh, report bi ñu ngi waxoon ne I think hanga Muslim high, school uh, a yi loolu moo taxoon di Gambia Port Authority ah, ah, mënuñ woon a d'accord ak ah, gars yi on something mhm. so léegi xam nga ñii bu bu yi defee seen négociation bi then everything actually was actually um, run smoothly lii daal xam nga is a good information waaw waaw xam nga nag yenn ko lu diis dañu mhm. yëggandoo mhm. lu diis ñi koy yenu